Maama Lamine dafa am gàllankoor yëg gàllankoor ci yaramam ba de combat bi dañ ko mujjee reporté. wax dëgg la xam nga gala la boo xamante ne nii journée des espoirs ñu tuddee ko juróom maanaam juróomi grand combat la bu ci ne am pareem. combat boobu nag la doyen El Hadj Papa Dieng. waaw moom lañ ko tuddee woon def nañ ci ay face to face mu ànd ceeki mbokkam. ñu doon ko waajal diggante Maama Lamine ak Garga de. cool yi bëri woon na lool. muy doon ñaar ñoo xamante ni làmb yaakaar nañ. waaw am si am yaakaar lool bon Mama Lamine ñu ne xale yu bëri da leen duma daan leen. Euh, Garga de ñu gis leen daan yu bari moo leen freiné. ñu ne ndax day freiné Mama Lamine Mama Lamine na ko duma sa morom mu ne ko danga may laaj euh, Valdo. Euh, wala nga laaj ma doomu dangu. man faale wu ma poids lourd ñu xëccoo nag ñoom ñaar moo tax face to face yi bëri woon na coow. mais ci dernière semaine bi nag Mama Lamine gaañu entraînement. ci contact bu mu doon def ak Siteu. bëggoon ko nëbb moo tax jeudi la waroon def open press am. bon bi mu demee hôpital Sicap mbaaw ñu jox ko ay comprimé mu xalaat ne xëy na douleur bi dina wàññeeku mais gis ne dafa gën a yokk. mu bëgg a yoxoo su bëri xale yi nag nag ne ko bu ñu fonto da nga bokk ci écrit combat bi di combat déclenchement. te d'après info yi ñu am sax moom da leen ko bëggoon a nëbb. nëbb. mais ci open press bi xam nga open press foog nga daw 100 mètres wane sa boppam rassurer say fans. yéen ko forcé yóbbu ko hôpital. waaw waaw waaw ñu forcé ko yóbbu ko hôpital mu dem hôpital Fass Mbao mais ci suba gi mu dem hôpitalu Pikine. ñu wane ne mënul bëre d'ailleurs jot naa promoteur bi. mu ne ma journée des espoirs la te combat boobu dafa amoon solo lool. Eh, amateur dañ ko doon amateur dañ ko doon bàyyi xel. mais maa ngi xalaat xëy na ci fin août bi. danaa fa benn journée même bu dee jour jour jour jour ordinaire. ma libéré mbër yi au moins contrat bi wàcc leen. loolu daal lañu mujj wax ak promoteur bi Seck. nga xam ne suñ mbokk. kii lay dafa yor biir site internet mooy Vox Arena. Vox Arena waaw. Euh, dugg ci mbir mi ba mu yàgg mu ne nag pourquoi pas ma ma ma ma contribuer ci làmb. waaw waaw mais loolu la mu réussir risque la jël. donc mhm. je pense ñëpp dañ ko war a jàppale. Mhm. parce que loolu tamit yombul. mais tamit mën nañoo ñëw tamit ci blessure avant combat yi parce que tamit man je crois que ne genre ñaari mbir war nañ ci wax. Mhm. Euh, Mama Lamine ni mu def noonu la war a def parce que. Mhm. mbër yi dafa am loo xamante ni ñëw ba jouru combat. nga daan ak ñu daan la nga ne da nga bëreeg blessure. Mhm. loolu c'est normalement manque de respect amateur yi la. manque de respect sa adversaire la. waaw ah. parce que tamit su la daanee. nga ne blessure bee tax mu daan man yow boo ko daanee nga ne pourtant de blessure laa bëree moom tere terewul dama koo daan. waaw xam nga léeg-léeg euh, mbër daan toog ci plateau bi ne dama feebaroon wala dama am blessure moom mais daan métti président Alioune Sarr. waaw maa ngi moom médecin la. nee na da nga defee ne am nga ndam mais amuloo ndam. parce que benn boo daan woon ne damaa gaañu kenn du ko gëm. kenn du ko beneen bi am lu la règlement may te sa santé moo war a jiitu. moo war a jiitu kon moom nga war a sàmm. ndax boo dee bëree si pour nga renouveler sa licence wala nga am cer wala nga wala nga am licence dañ lay laaj certificat d' aptitude médicale ngay indi wane ne apte nga pour def sport kon bu la loolu dalee da nga ko war a signaler moo gën a professionnel ngay wane ne da ngaa def njàmbaar loolu da daan métti le président Alioune Sarr ñoo ngi koy nuyu de passage euh, te it nag soo daanoo ne damaa feebaroon dañuy wax du dëgg dafa daanu di lay euh, moo tax nag xale yi ko jege Euh, même promoteur bi yebal na Babacar. mu woo ko ne ko dégg naa da ngaa. blessé blessé mu ne ko déedéet. open press bi tax defoo ko mu ne mu ne dañoo am dese ci quartier bi. bëggoon ko nëbb bëggoon ko nëbb mais gars yi na ko non loolu mënu leen. ndax combat bi dafa am importance lool. c'est vrai ci yow am important écrit bi sa fonk ko lool nag. moo tax nanguwu ñoon mu bëre ko blessure. te te Garga 2 sax da doon loo xamante ni sax moom. je pense que booy bëreeg moom da nga war a taxaw à 100 pour cent. non ñuy bëree te doo nekk te te doo nekk à 100 pour cent. ndax mën naa bëre mën naa xeex am na doole. am na fit. waaw te ñeme na te xale bu mën a bëre la. a te benn da jël combat ñu def ko favori. waaw c'est mais xam nga léeg-léeg mbër yi da ñàkk combat bañ ne non su ma ko delloo dañ naan dama ragal. waaw léeg loolu moo leen di sonal. waaw ba léeg dañuy bëgg a bëri ji ak blessure mais c'est trop risqué loolu wóorul. waaw loolu loolu tamit il faut il faut mm-hmm. Mm-hmm. il faut signaler saa quoi mm-hmm. donc kon moom mais journée bi du journée bi la ñu annulé combat boobu rek la ñu annulé. moom la ñu annulé ndax euh, xam nga euh, combat mi ngi tuddoon journée bi euh, journée c'est cinq maanaam cinq grands combats yi. ndax yëpp ci na grand combat ndax alliance bi la ak caatu ngéwël. boobu grand combat la. waaw moustique war cee dajeeg noiro. ba tey boobu grand combat la. Fourière war ci daje ak Baye Mandione Junior. bu caaray rek door ak Baye Mandione boobu grand combat la. mu des nag daj dëpp gi ñaari champion d' Afrique yi. diggante Franc ak Tyson 2. Tyson nga xam ne nga xam ne Tyson 2 am na loolu ma treize victoire wala quatorze victoire deux défaites la Elton doo nga ko daan ak premier combat ma guy gi te loolu premier combat la. combat bëri ñëpp dana leen daan di champion d' te bëri Euh, daan fa garga 2 daan fa góor a soog Franc jël ko Franc nag su ma jumul mi ngi ci 10 combats 10 victoire amagul défaite. waaw non 9 combats 9 victoire moom amagul défaite. Franc Franc moom Franc dafa doon ñoo xamante ni gars yi dañ koy comparer souvent moom ak euh, Reug Reug. waaw ñoom ñoo ñoom daan daanaka ñoom la ñuy tëkkalee. mais ci ci mbapat yi Franc daan na ko mais Reug Reug ëpp lu mu ko daan. mais gis nañ ne depuis bi Reug Reug génnee. li ci ëpp bu franc ñëwee moo koy jël temps yi sax gis nañ ne xëy na Serigne Ndiaye mi ngi defaat ay preuve am mais Serigne Ndiaye su ma jugul ba léegi daanagul franc mais Serigne Ndiaye it mi ngi wane boppam presque bu ñëwul bu rër rek ñëwul franc ñëwul li ci ëpp moo koy jël moom daal mooy troisième mais franc daal di mbër moo xamante nii jóge na Espagne sax ñu teg 10 millions mu ñëw jël si ko <laughs> waaw lu ma tamit te musul am defet franc dafa taxaw franc mhm. dafa taxaw maanaam franc franc dafa saa bu summeekoo nga xam ne mbër moo summeeku. Mhm. entraînement dafa dafa dafa bëri doole trop. Mhm. est-ce que yow mhm. combat boobu noonu bu ñu ko doon jàngat diggante Franc ak euh, Tyson 2. ñoom ñaar doole bu ñu doon wax ci doole dëgg-dëgg. waa man gis naa ne Tyson 2 sax ndaanaan la xale bu jafee daan. waaw parce que dama gis mais mais su ma doon def favori. waaw euh, man euh, Franc laay def favori. mais favori wanewul ne yaa man c'est que maanaam bu doon loterie diw naa liw moom ngay ëpp ne mu ëpp ay avantage pour gagner. waaw dañu mais dañu gis suñu xoolee. Euh, mhm. diggante euh, euh, Tyson de ak Goro Sock. Mhm. dañu gis ne Goro Sock moo soo côté masse Goro Sock mooy ëpp masse mais bu ñu xoolee bu ñu songoowee. dafa mel ni doole bi feeñul foofu. waaw feeñul mais xam boo seetloo moom nam gagné par recours la mujj gagné parce que kee daa njëkk am quatre appuis. na ko ñaari yoon ci combat bi. waaw mu jàpp loolu mais Gora Sock daan na ko ñaari yoon ba remporter victoire bi. dem moom ñu bind recours ne ko defoon nga quatre appuis. mais teewul euh, na jël ay matukaayam rek. mais xam naa ne franc moom. pour ma gëm ne day ñàkk. xanaa ma teg sama bët. waaw waaw tey sën de nag ku mënta daan amul. mais daal franc gëm naa ne bu su su juumul. du neex a daan parce que moo gën a doon xale te moo ëpp moo ëpp compétition ndax moom xaarul combat mi ngi ci tournoi yi di préparé waaw wax nga ah, mais nag combat la Tyson 2 kuy bëre moom na ko bàyyi xel wax nga dëgg wax nga dëgg dafa ndax li tax mu jar a bàyyi xel mooy daf ne man waruma bëri ak ñii waaw ñoom Sa Thiès waaw ñenn ñooñu ay euh, ñoom Garga Mbossé ñoom Garga Mbossé ñoo ñoo war a bëri ak man mais dañ may moytu te mënumaa toog du ma bëre moo tax ma jël xale yi moom dafa mel ni moo ko Elton moo ko xaw a yàqal tuuti waaw dafa daanu ci Elton mais teewul dafa continuer woon defaat preuve am. waaw tamaa muy am ci combat yi. ay hmm. Paka la. Hmm. ay yoo xam ne gars yi daal mbëri dañ leen di teg duñ leen bëgg daal dañ dul sawar ci ku ndaanaan. Hmm. lii tane sax mooy. même boo doonee ndaanaan nga am public. parce que su boobaa produit promoteur bi ngay doon. c'est vrai c'est vrai day wax jiw laa samp. moom laay bëreloo. soo bëggee jël boo bëggul bàyyi. su boobaa dañuy bëri yow wala ñu abal la làmb ci waaw loolu jar loolu jar na jar na sa ñaaw parce que dafa bëri yoo xam ne ma dañuy mujj dem ba mhm. dañuy wàññeeku du bëri mhm. ñi seen ginnaaw parce que ñi ci kanam tamit bëgguñu leen naw loolu kiiwuñu leen daal duñu leen leen teg fenn ba jàpp ne dañoo war a bëri ñoom parce que li koy waral mooy euh, lamb temps la dimanche boo toog bëree woo ko yaa ngi perte samedi boo toog bëree ko yaa ngi perte ndax at yi du la fi xaar doole ji du xaar lamb temps la kon munoo toog rek di xaar loolu erreur la d'ailleurs looloo tax ñoom euh, léeg-léeg bu jaaduwul rek bu avancé nga jël dem bëri ci wax nga dëgg dañ naan danaan xëy na ci kanam sama chance dina ñëw pour ñu bëreek man. wax nga dëgg wax nga dëgg mm-hmm. loolu loolu lu jar a sóoraale mm-hmm. loolu lu jar a léegi dafa am leen benn phénomène boo xam ne Père Max bëgg naa trop ñu waxtaan ci. Mm-hmm. muy phénomène de face to face avorté.